ndeysaan ñu nga ci demi-finale poids léger yi moo nekk noonu góor moo ñu woon ginnaaw noonu ndeysaan ci demi-finale poids léger yi ñu ngi noonu san demi-finale poids léger moo nekk noonu Ngor Ñax moo ñu woon ginnaaw noonu ak Amadou Korka Diallo ndeysaan Amadou Korka Diallo ngeen di noonu moom xees ndaanaan la ndeysaan ñoom ñaar ñooñu lee beneen combat bi Tony Junior la beneen demi-finale bi kon Tony Junior mooy bëre demi-finale noonu ñu nga ca ndeysaan Amadou Korka Diallo Amadou Korka Diallo Amadou Korka Diallo Amadou Korka Diallo Ngor Niakh laxasu na ko Amadou Korka Diallo Ngor Niakh laxasu na ko Amadou Korka Diallo Ngor Niakh jàpp na ko Ngor Niakh laxasu na ko du ko bàyyi du ko bàyyi laxasu na ko du ko bàyyi Amadou Korka Diallo Ngor Niakh eh. lu arbitre wax lu arbitre wax Ngor Niakh Amadou Korka Diallo ngi noonu ndeysaan Tony Junior la ci beneen combat bi ñu ngi noonu ndeysaan ñoom ñaar ñooñu le Amadou Korka Diallo Ngor ñaax Tony Junior da koy diñ mu toog da koy bëgg diñ mu toog bëggoon duñ mu toog da ko bëggoon duñ mu toog da ko bëggoon duñ mu toog da ko duñ mu mu ngi da ko duñ mu daanu na Toni Junior daanu na ñu ngi noonu ndeysaan Ngor ñaax Amadou Korka war na ko ndombo Tony Junior daanu na ñu ngi noonu ndeysaan jogaat na moom moomu da ngoor jogaat na ñu ngi noonu ndeysaan ngoor ñaax daanu na ngoor ñaax daanu na ngoor ñaax daanu na ndeysaan ndaanaan daanu na ndeysaan moom Ngor Ñaax le boy a daanu ndeysaan Ngor a ngoog daanu na moom moomu le Amadou Korka Diallo daan na ko nakanywa ah Moustapha Sall la ndeysaan ak tas yaakaar ñu ngi noonu na ko Moustapha Sall ndeysaan tas yaakaar Moussa Ndiaffate revanche ñëwaat na de revanche ñëwaat na ndeysaan revanche ñëwaat na Moussa moo ko mujjee daan ñaaxar ndeysaan te 3 millions yo ñu nga taxar ga fu fee rek ndeysaan du yomb njaaga bi génn fas gu weex gu weex moom njaaga boobu lee seen combat day metti ndeysaan parce que Moussa Ndiafaat moo ko mujjee ci 3 millions yi ya ca ñaaxar mu ngi noonu ndeysaan Moussa la ak Franc Ndiago ñu ngi noonu ñoom ñaar ñooñu le bu ñu mujjee daje ndeysaan ca ñaaxar la woon te lamb Yékini ja Moussa Ndiafat plaqué ko jéggi ko rek jàll te ñu ñëwaat seen revanche bi ñu mujj fii Franc moo ko daanoon ci 10 millions yi gene ko kon lamb ngok ñu dajé dajawaat tay fi ci arène nationale bi ci bésu fallu Ndiaye bi bi yombu noonu ngeen koy kan gisee ndaysan fi lay xew ci Lac TV o fogole sereer de dangata tamene no million xarbay ke ndoor ena meen fara mafun ndaxat ñaaxar ndeysaan na 3 millions ka yekeni Moussa da Mafin te de ga tere yaa ngi tag fi lay xewe ndeysaan ci la cross TV ko fogole séeréer avec Cheikh elle les jama de la cross TV duma len leen fàtte sama dom sama jigéenu ñaawul yooyu sama dom doom ndey samay xaritu bop Fatou man ndeysaan sama étudiant yi ci bambay ben yoon sama support bi ci bambay Baba Ngor sama support bi ziar nako bax bege ko ken du Ismaïla Ndiaye plaqué na ko ndeysaan mu ngi koy accéléré da kay war ndabo dal rek comme d'habitude ñu nga ca ñam ñar ñu nga ca ñam ñar bëre para rek Cheikh Tidiane mu nga ca ngoobu na ko wër na ko ndomb daan na ko ndeysaan Fra daan na ko Fra daan na ko Fra daan na ko Fra daan na ko Fra daan na ko Moussa daanu na Fra daan na ko o fogole sereer Moussa yerna Franc Mafane ndeysaan Franc daan na ko Franc daan ko Ndiaye Franc daan ko waaye ma ne Cheikh Franc mi tey lu indi Franc lorsque l'entrée dans l'arène Franc bu tàccoo ñetti tàccoom yooyu waaye ma ne Cheikh lu koy tere dem final gisuma ko la ilaha illallah waay waay waay Moussa jël bi da koo bett jël bi da koo bett Cheikh xool ko ak paa ba waay waay paa ngi koy defal waa këram ngi koy yëkkati lu muy xalaat Cheikh fii lan lay xalaat. fi ndeysaan day xalaat ñi mu àndal xalaat waa kër ga ndeysaan xalaat 3 millions yi mu ñàkk daa ñàkk 3 millions ndeysaan moom la ñàkk. ñi yegsi ci final poids léger bi poids lourd bi kon. diggante Franc la ak tas yaakaar ñoom la ci seen wërsëg nekk ñoom ñaar ñooñu ñoo des ci drapeau bi la ak tas yaakaar Franc tas yaakaar dalay dij na ko yaakaaram tas na moom fa moom moom tas yaakaar mu ngi noonu ndeysaan lamb jàngook tas na yaakaaram ndeysaan moom moomu le yaakaaram tas na loolu moo fi xewoon tey ndeysaan ci arène nationale bi le